mbokk mi laaj nee na dafa am xeetu kart wu xew mu jàpp ne kart la match football yi am ci Europe nee na dafa am application yoo xam ne boo ci kee da ngay fay ay mille francs wala yu mel noonu di wax ni di way gaañ diw moomee bu gañe wut na nga bu gañee nag mën nga caa gañe dañ ci gañe ay xaalis ba nee na ñaar fukki junni lu ko féete kaw muy laaj loolu yu atteem loolu atteem carte la te carte moom dëgganut muy alal ju juddoo dëgganut ginnaaw moom day joxe dara ngir jot lu ëpp loola rek carte la te du liggey bu def du jenn jenn lu am jenn lu mu bi ci desit wax lu wëru te ngi ndax lu ñëwagul nga at ne nii lay démé léeg-léeg mu doon wax ju du dëgg jo xane bakkar lay doon jural nit ki la nga wax ne non lay dé bu di demee wut amul bakkar ne bu di démé yit da ngaa tàndu tuwaay la nga wax dar leer la ci ab jullit day moytu yooyu waye xaalis ba ci jóge mom nañu xamne du xaalis bu dagan daganul ci jullit mu lek ko ndax xaalisu carte la wallahu taala alam mbokk mi laaj lan mooy àtteeb ñiy partagé lu mel ne tontu laaj yéeg ak yeneen yi waa partagé de tasaare la ku tasaare aw yiw nag am nga tuyaabay ku def lu baax ndax ku tegtale lu baax mel nga ne ku def lu baax kon ki def lu baax li ak ki ko tasaare ba ñeneen mën cee jot jariñu ñëpp amu yiw incha allahu taala waaye safaan bi noonu la lu bon moom dañuy bëgg nga dëbb ko saa bu xasee ak si cew bu mu jógee ci yow di jàll ci keneen su boobu ñaawlu na lool ñi nga xamne dañoo bëgg aw teef di tassaro kon partage lu baax lu baax la angbon partage lu bon ak bon la go xamne dañ ko wara moytu wallahu taala alam mbokk mi laaj neena ko xamne da ne ci ay nit di yaakar ñuy sant wala ñuy bëree wala ma ah, dal di amal ay xew-xew di ñew di sakku ci mom dimbal bu ca joxe loolu lam joxe rek atem la yoon ndax loolu dimbalante la kon ay nit ñuy am lu ñuy def bëgg ko leen dimbali la bu fekkee ne la def lu baax la lu baax la ndax wa taawanu alal birri wa taqwa bu fekkee la def lu bon la nag moom dimbali leen ci daganut ndax wala taawanu alal ismi wal udwan mi ngaa ji daal la def bu dee lu baax la lu islam gërëm la ku leen ci jàppale te yàlla tax da nga am lu tuyaaba ja bu dee safaan ba it safaan bi la wallahu taala alam bokku mi laaj neena na way dencante yu jokko ci appel video neena kenn ki di xool awray moroomam ba ban yëg ci bànneex luy atté lolu yoy day jaaduwut islam bo risu ko def benn yu ñu jokkoo kenn ta wax ne ñom ñaar dong ñoy gis awra ci ay jumtu la yu na ci loxoy ñeneen yoo xamni luñ bëgg téye mën nañ ko Dan te kenn ta garantie wax ne ndax jaarut fenn bañ dancu ko fa mu do ci ñom te lolu wan say rek kenen ab jullit dagan ci moom mukk li ci des si sax ñaari way dañ ci ci bopp nit ci boppam xool awray boppam ci lu ngànt dañ koy tere bokkul ci teggin lislaam gis sa awra ci dul ngànt wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na naka la nit di def bu mucc ci tere suñu borom yi sababu lu mucc fu ak tere nekk nga daw ko moytu ko fexe ba tënk sa bopp ci ndigal yàlla yi di ànd ak ñi ci tënku barab bépp barab boo xam ne euh, ku fa nekk euh, ñu man laa yóbbaale ci yooyu nga bañ faa nekk képp koo xam ne boo ànd moom mën laa yóbbaale ci loolu nga bañ a moom ak nag di ñaan yàlla suñu borom musal la wallahu taala alam mbokk mi laaj xadis bi wax ne kuy fo ci ñuy wax nar bachir ngi mel ne kuy sóob cuub loxoom ci yàpp mbaam xoo ak deretam muy laaj mm, maanaam xadis bi ak ndax euh, lido ci loolu la bokk waaw xadis bi day wax araamal li ñuy wax nardashir nardashir mooy li ñuy wax nard euh, xeetu fola yoo xam ne xeetu dam yi soriwu ko daal lido yi mel noonu yëpp ci la dugg day wane ne kon dafa xaraam ci ab jullit mu di ko def bu dee ci mosab Maalik moom dafa xaraam nard ak chatran yëpp dañoo xaram kon ay xeet lañ doonte dañ koy def ci lu dul carte nga xam ne àndut ak carte nañ koy def di ko foree nii rek eh, ci mosab may daganut ab jullit di ko def wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na nit ñoo xam ne dañuy wër di laaj ay ndimbal ndax seenu mbër di waaj a bëre wala ñuy waaj a bal di laaj ay ndimbal wala ñu def ko ba noppi daal di wër di laaj ay ndimbal muy laaj atam ndimbal loolu waaw fo moo xam ne fo mu dagan la de bu la ci laajee ndimbal bu la neexee joxe ndax kon lu dagan la su boobaa waaye bu dee fo moo xam ne dëgganut benn dëgganut ndax moom dañuy tere ko def wala dëgganut ndax lañ koy booleel yu bare ci fo yi fii nag bu jëmmi fa mu dagana yi liñ koy booleel tax na dëgganut maanaam bari nañ koy defee fii dëgganut ndax njabar ga ci nekk eh, yi ñaawee cay feeñ ak euh, waxtu yañ cay faat ak awra yi cay wuññiku yooyu tax na daganut daganut ci ab jullit kon boobaa nag kenn waru caa jàppale ku cay yëngu kenn waru caa jàppale ku ci yëngu wallahu taala alam